di leen yëgal ni fa ñu toll woon moo di jaam bi nga xam ni dafa wàcc ci kaw suuf yàlla bind ko waaye amul lu muy wax yàlla lu dul li nga am ci xéwal yépp jox ma ko ci kaw suuf daal di fa yem waaw kooku nag yàlla ne na loolu gënalu ko ndax kooku amul dégg-dégg ci àdduna ndax ëllëg alaaxira du fa am dara yàlla ne am na ñeneen ñoo xam ni ñoom bëgg nañu seen dund fi yëwoon fii ba pare bu ëllëgee ñu am dund gu teey gu dal ca àllaaxira danañ dugg aljana yal nañ ci yàlla boole yaa rab yaa mu ne wa minhum te am na nag ci ñoom man yaqulu ñoo xam ne dañuy wax ci nit ñi rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annaar nee na am na ñoo xam ni na e yow suñu borom yàlla nga ñu jox ci xéwal yi am fii ci àdduna ak xéwal yi am ca àllaaxira te nga musal ñu ci mbugalum safara lii dafa am lu mooy fàttali suma benn pàpp bu baax ndeysaan yal na ko yàlla yërëm muy sëñ Mansour si euh, ndeysaan daan na ko wax cousin la sama yaay ndeysaan ñu ko daan seeti mu ne ah bien fii bien fële xam nga boobu xaw nañ nekk xale tuuti waaye boo demee ba dégg wax ji ba xoolaat aaya yi di nga xam ni paa bi li mu wax amoon na solo saan am fii jàmm ci àdduna du rek am matériel du am xaalis déedéet am jàmm àdduna comprendre lan moy sa mission ci ko lolou moy atina fi dunya hasana dunya hasana gogu moy nga xam deg am deg deg ci àdduna ndeysaan nga daagu ndànk dugg aljanna yalla nañ ko yalla defal ya rabbi te yàlla na ko yalla defal mom tamit mi nga xam ni daan soñu bu bax nit ñi pour ñu am fi am fele inshallah taala ndeysaan donc ñi ñoo ñi nga xam ni dañuy dund seen diine deug dañuy dund seen ngëm deug dañu am fulak fayda ci seen ngëm dañ ko ngëpp ci seeni loxo té nak terewul dara nag ci lii am ci àdduna ci ay taar ci ay bànneex ñu di ko dund di ko di ko di ci bénéficier di ci xéewlu di ko sant yàlla subhaanahu wa taala xam nga loolu ñu bari daf leen di nax am na ñoo xam ne fii ci àdduna dañu la wax ni boo amee yére yu baax wala nga am kër gu baax mënoo nekk jaamu yàlla buy dugg aljana mënoo nekk bokk ci wàllu yu déedéet loolu fan dañ ko bind amul fu ñu ko bind ci kaw suuf amul téere bu ko anti man di boo gisaguma ko bokk ci sama gëstu bu gàtt gisuguma loolu waaye daal xam naa ne fii ci àdduna li la yàlla jox ci teranga nga di ci sant yàlla di ko bokkook jaam yi xam ne li yàlla yàlla jox nga lekk ko nga mën a lekk sa njaboot li mu lekk la li mu war a lekk la mën a lekk li ci des ñeneen ñekk moom nga di ko séddoog ñoom loolu dund gu am solo la ci kaw suuf yal nañ ci yàlla dimbali nga daagu nànk nag ëllëg incha allahu taala dugg mat di ñaan yàlla la waaye dund rek ci kaw suuf bëgg am fii te àllaaxira jéemuloo sa topp am na ñoo xam dañoo gëmul àllaaxira aussi gëmuñu ko gëmuñu àllaaxira ñu bari itamit ñu ngi def fii di mooy yàlla di suba ngoon guddi dañoo gëmul ni àllaaxira am na ndax buñ ko gëmoon dëgg-dëgg wallaahi dinañu wàññi li nga xam ne ci caaxaan ñu nekkee di ko def ci àdduna waaw maa ngi gis fan yi rek li sant ci ginnaaw ah, bi mbir mi lëmbalee réew mi ci bari ndeysaan rappeurs yi yeeg musiciens yeeg ñëpp ngi woy corona corona corona dimbali ñu sonal nga ñu gis naa sax eh, eh, ñi nga xam ne dañuy eh, ñu koy wax ci encore dañuy euh, ñu koy tuddee ñaan waaw euh, suma mbokk géwél yi saan ñoom tam dégg naa ñoom ñu naa corona lëmbale nga réew mi sonal nga ñu fitnaal nga ñu bàyyi ñu dund ñu dematuñu xew dematuñu fenn dañoo confiné ma ne confinement bi baax na ci de mbokk yi nee naa leen fii ci waxtaan yi mujj ci ginnaaw ne leen ngoon guddi pour nelaw la Sénégalais ne dafa tàmm dox guddi dafa tàmm dox guddi man président bu la mënoon ñaar dama laan confinement bi moom nu continuer ba ca kanam a kanam a kanam fii léegi un an deux ans bu ñu paree corona incha allah ñu confiné ñu ngir suñu jikko yu baax mën a dellu si waat fi mu ne borom kër yaa ngi toog ci kër yi ban borom kër moo néew na ñi nga xam ne dañu organiser seen dund suñu wàccee ñibbi rentré dem toppatoo seen njaboot xoolaat seen bopp seetaat seen yaram xoolaat seen programme bu ñu war a am ëllëg surtout enseignants yi jàngalekat yi nga xam dañu am ay travaux yu ñu war a def ay préparation yu ñu war a def loolu ñu bare daaw ñu ko defati xaar matt fii ngoon si fii xaar ma jàngale fii xaar ma lii di daw a daw ba nirtuñu ay nit man daal président su ma doon yow naa bàyyi xel ci lii bu baax a baax réorganiser société sénégalaise ba mu nekk société boo xam ne référence doon ci kaw suuf

xamuloo ko désolé xamuloo ko kon ñi ngi lay encouragé ci loolu nga dimbali ñu ci suñu société bii ñu ngir yàlla ñu delluwaat ci li neex yàlla guddi ñu xam ne guddi la y a des travailleurs de nuit mënuñ ci ñoom dara il faut que am na ñoo xam ne guddi la ñuy liggéey boo demee ci bitim réew boo de yàggee bitim réew di fa dem da gis lu mel ni comme euh, camion remorque yeeg oto yi nga xam ni chargeur gros chargeur yépp ñoom guddi la ñuy daw bëccëg bi du ñu nekk ci tali yi moo tax tali yi dafay gën a féex parce que dañ ko organiser guddi ñoom ñoo ko moom ñi nga xam ni tamit dañuy liggéey ci wàllu bâtiment yu mag yi nga xam ne ay immeuble ay centaine d'étages ñooñu guddi la ñu gën a liggéey donc bu ñu réorganiser suñu société ba ñu xam ni lii ñii fii la war a nekk ñii fii la ñu war a nekk ñun ñu confiné nañu ci kër yi ñu yëgal ni ñu guddi pour nelaw la parce que guddi gi amuñu dara lu ñu def ci mbedd mi xam nga taxaw wàllu guddi xam nga guddi nga dem di wuti bàyyi leen mi ñu jaay sa bopp seen bopp dañ daan dem ci ñoom di waxtaan ak ñoom mais liñ nekk ñoom neexu leen mais dafa ñoo xam dañ leen encouragé ci loolu

yow yàllaa ngi lay waaj a faagaagal yaa ngi waaj a dem àllaaxira xamoon ndigam yàlla dina la nangul ndax yow yaa ngi doon jaay sa bopp yàlla dafa bëgg loolu yow doo jéem a tuub doo jéem a dellu si yàlla doo xam ne fa nga tegoon tànk du foofu mais bon ça faut être sérieux foog ñu xam liñ te pourtant ay jullit lañu mais va vendre des cacahuètes demal jaayi gerte demal nga je sais pas man yenul paanu ndox nga dem jaayi ko cent euh, franc dellu si waat cent franc yooyu nga denc cinquante jëlaat cinquante dem jaayi wat encore soo ko defee au jour le jour nit dafay xam boppam balaa muy gëm boppam bés bu ne ma wax leen ko yow yaay kan da nga am dignité war a taxaw di ñaan di ñaanatu sax yu nga ñaanatu ay nit bien portant ay jigéen yo xam ne ay drianke lañu dañ ñëw sa buntu kër fëgg may ma nii may ma lii sama njaboot amuñu lu ñu lekk mais yow doo dem liggéey doo dem fóoti il faut que le président nga dimbali Nous, ñun sonn il faut que nous nous ñu tegaat ko ci yoon jaaduwul li ñu Nous Nous sa responsabilité la taxawal nga assumer Nous ndax yàlla daf la fi nous pour loolu nous jàppale ñu ñun Nous, nous ñun fu Nous, nous dugg corona on en profite pour en parler nous sommes nous. ne sommes ko nous. koy gis nous des gens qui sont dans la misère dans la pauvreté dans l'extrême pauvreté la ñuy jaay seen bopp te bëggatuñ jaay seen bopp ñuy rakkole te bëggatuñ rakolé dañ leen ci pousse di leen forcer pour ñu koy def waaw ñu ne ay julit lañ ñu dañu bëgg yàlla waxuma la corona gis nga buñ tuubul wallahi maa la wax ni lu raw corona yàlla dina ko fi anti on dit que corona dafa wàcc ay dafa dafa dafa dafa échappé ci ay laboratoire magum laboratoire dafa échappé te yàlla moo bëgg mu dox moo tax il est en train de faire du travail son boulot man maa la wax ni balaa nag muy trop tard nañ fexe góorgóorlu dimbali jaam yi teg leen ci yoon te ñu réorganiser réew mi ku ci nekk ñu jox la li nga war a jël nga jël ko utiliser ko à bon escient liggéey li nga war a liggéey ku ci ne bu ñu jox responsabilité nga assumer ko nga gis président nga ñàkk ko gis gis ministre nga ñàkk gis lii mooy société waaye su ma gisee président liggéey su ma gisee du ma liggéey su ma gisee ministre léegi su ma gisee du ma liggéey du ma ñëw waxtu liggéey du ma pointé mais président ñu ma koy nettali président Mamadou Dia ba mu fi nekkee mais am nañ njabootam koo xam dafa tardé building tardé liggéey ñëwul pointé wul à l'heure mais dañ ko ko dindi ci salaire am dañ ko ko dindi am na yoo xam ne amul état d'âme dafa jaaduwul jaaduwul jaaduwul bu ñu xasee ba commencé tegu si yoon nag yombul waaye bu ñu commencé ba yëgal nit ñi sensibiliser leen ba yëgal lii mooy tax ñu am jàmm nañu raxas suñu loxo loolu corona waru tax ñu raxas suñu loxo bon sang war nañu raxas suñu loxo fu ñu toll même njàpp gi dañ fa am mais au moins cinq fois par jour yaa ngi julli bon sang jàppal raxasal say loxo ba pare yun salasa lim ñu jàngal soo tëddee soo jógee suba teel yow fa nga fanaan xamuloo fan la parce que nelaw comme dee la dee gu daw la li la dina jàngale kon boo xëy li nga njëkk a def mooy raxas sa loxo balaa nga koy dugal ci ndap li ba nga xam moom jàppee léegi sa am na robinet nga xam dafay couler mais avant ay bassines la woon nga xam da ngay dugal sa loxo donc balaa ngay def sa loxo ci biir raxasa sa loxo ba mu set ba pare na xam lo fan la fanal fanaan la yóbbu salaa wax mais diine dafa yéeme mbokk yi dafa yéeme kooku ñu delloo si waat nit ñi jàngal ñu bee abaawu diine ndax bee abaa boobu moo ñuy dimbali ba ñu mën tegu ci yoon corona ak leneen bu ñëwee ñu xam nan lañ ko gérer éducation de base boobu lañ amul diine bu la jàngale ne say we 40 jours warul def warul nekk si say si say ci sa loxo 40 jours warul la ko def ak ay we mais da ngay gis ñoo xam dañu jàngale diine mais seen wéy yaa ngi gudd nekk ay góor salté yaa ngi ci biir baal leen ma njàngale moo métti mi fokk ñu génne ko ndax loolu mooy tax ñu mën a defaru dañu ne soo bëggee faju da ngay yëg ni danga feebar ba pare mais boo yëgul ni nga feebar amuloo conscience ni da nga feebar mais sa faju dafay jafe moo tax am conscience yëg ni man fi ma teg tànk du fii fi ma teg tànk feneen laa war a teg daa am solo mbokk yi ndax loolu daf lay dimbali bu boo léegi incha allahu taala sa faj day yomb sa faj day yomb waaye nag amoo conscience ci li ngay def euh, xamuloo li nga xam ni mooy jëf yi nga xam ne boo ko jëfee yaa ngi lor nit ñi te yëguloo ko xam nga tey ñi ngi wax corona on en profite corona ba léegi médecin yi sax man dama ko suivre à la lettre parce que nit foog nga wu gëstu lii xew lan la

nga dégg kenn koo ne ci santé la nekk nekkoon ci kilifa ma ci gis parce que réseaux sociaux yi kenn xamul est-ce que moo wax waxul xamul ñu ne léegi boo ñëwee sa kër boo ci ah loolu moom mi ngi bëgg doy di masque obligatoire raxas loxo boo poignée bu fa ça devient très sérieux tout ça

ginnaaw responsabilité li mu bëggoon moo wax mooy conscience ñu fexe ba mbokk yi am ay comportement ay attitude responsable yëg ni dañu am ay état intérieur ay xalaat ay sentiment ay sensation yoo xam ne ñoo nekk ci ñun te loolu yëpp conscience moo koy gérer moo tax ñu war a xam lan mooy conscience conscience mooy nga teewlu présence en soi maanaam nga teewlu baat bi def naa nu laa ko mën a ci loxo nga teewlu nga yëg yow aduna bi comme ni ma ko waxee ci waxtani jëkk du yow rek ya fi nek waaye c'est un monde bo xamni tu fais partie de ce monde yeen ben maillon nga ci chaîne bi nga xamni moy monde te maillon bobu nga nek yow buñ la ci génnee mun na am lu bare lu yàqu ci monde bi ni kon yow war nga xam sa place moy lan war nga xam nan nga fa wara a war nga xam li nga jëriñ askan wi moto tax bi ne mo len ni fi RTS ñu nek fi tay di def émission mais ki bale RTS bu fi nekkul aduna tukki ki defar ki defar toilette RTS bu fi nekkul aduna tukki àdduna tukki kon dañu ko war a respecté ndax cër la boo xam ne am na ko te keneen mënu ko def laajal keneen mu def ko laajal benn benn directeur sàngam mu def ko bare na te être ay directeurs yoo xam ne xëy na jaar nañ bitim réew parce que bitim réew moom <laughs> du kenn moo lay defal dara loo mënti nekk loo mënti am ci ay euh, euh, diplôme ak ay lijaasa ak i responsabilité sa kër moom yaa koy nettoyal sa bopp fii rek ngay gis góor ñi bu ñu ñibbisee du ñu togg duñu yak duñu te dañuy croiser les les bras croiser les les jambes tok ci salon bi ci seetaan ay télé waaw fi rek lam té pourtant ay jullit lañu l'islam la mo xam du lol de kër gi da ngay participer deug la ku jigéen ci le mo responsabilité dañ ko koy laaj ëlëk mais yow mi nga xamné ya chef de famille mais amna ko xamné sa modèle la mooy yónni alayhi wasallam qu'est-ce qu'il faisait marché da daan duggi marché te boo duggee marché ñu ne ndar ah man de ndar la bokk.

xam sa bopp balaa ngay balaa ngay gëm sa bopp da ngay xam sa bopp ba pare loolu nag ci conscience la bokk kon conscience yaatu na yaatu goo xam ne ci wàllu identité ak yu demee noonu maîtrise de soi xam mën a téye sa bopp euh, loolu daf lay libérer ci li ñuy tuddee animalité da ngay dem ba nga xam ne njaay yàlla gi nekk ci yow dafay dem yoonam te mbokk yi ñu bari ci ñun <laughs> am nañu diplôme am nañu poste responsabilité waaye ay njaay àll lañ ngeen baal ma ndax dañuy jëf jëfu njaay àll kon yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla doolu taxawu yal nañu yàlla doolu jàppale doolu ñu sàmm suñu Sénégal gii nga xam ne ñoo ko bokk yal nañu yàlla dimbale ba tappe suñu xol ñu nekk benn ànd te mi yàlla tax ànd ñu pour ay intérêt crypto personnel loolu baaxul mbokk yi te loolu moo fi am naa ci am lii su ma àndee président naa am lii su ma àndee moom mais yow yërëmal président yërëmal sa askan yërëmal bébé bi soog a judd bébé bi a besoin de ta conscience bébé a besoin de ton sens de responsabilité yërëmal ñi nga àndal ci askan wi bul xool ñoom li nga mën a am ci ñoom waaye yow xoolal yow li nga leen mën a jëriñ loolu mooy jullit mbokk yi di jégalu bu baax a baax wax ni incha allah ba gannaaw ëllëg bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.